collègues yéen ñëpp maa ngi leen nuyu kenn ku ne turam ak santam monsieur le ministre travail maa ngi lay nuyu le ministre des finances maa ngi lay nuyu bu a baax monsieur le ministre euh, Antoine Félix Diome maa ngi lay nuyu ministre du pétrole et des énergies maa ngi lay nuyu baax a baax di la féliciter ak sa équipe bi nga ànd ak yëpp vraiment di la féliciter par rapport liggéey bi nga def au ministère de des affaires étrangères euh, au ministère de de l'intérieur ñëpp xam nañ ni fulla ak fayda bu mat sëkk nga fa wone kon boog am na jamono yoo xam ne suñ tëddee duñ nelaw kuy dox sax da ngay gestu gëm naa ne pas-pas boobu ak fulla boobu soo ko defee ci ministère bi incha allah danañ am ndam kon boog ñoo ngi lay ñaanal yàlla sàmm la may la ndam ci li nga xam ne moom lañ la moom lañ la dénk. beneen bi euh, bu ñu xoolee ba ci biir 2012 ba léegi avant 2012 lan moo xewoon yaakaar naa ne boo awoon marché Sandaga wala nga aw foo mën a neex foo dem ay groupe électrogène ngay gis ñuy tàkk. partout nga gis groupe yi takk ratatat ratatat da am xaalis waaye doo am courant te da ay coupir mooy am tey bu yàlla dimbalee bañ ñëw fii tey nag wax dëgg yàlla ñu gis Senelec ak liggéey bi ñu taxawal liggéey bu am solo bi au passage maa ngi féliciter le directeur Senelec Pape Demba bi tey ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne moo ngi koy def moom ngi liggéey te kenn diggul coow li yàlla dogal nag Senelec liggéey bu am solo bi nga xam ne moo ngi koy def ñëpp war nañ koo mën rafetlu ndaxte avant booba ñëpp gis nañ ne problème lañ amoon loo am groupe nga koy jëndee li ci des carburant nga koy jëndee te du tax nga am li nga bëgg kon boog yokkute am na nañ ñaan yàlla rek mu loolu jëm kanam beneen bi waxoon naa ko ci commission yi euh, ñiy sàcc courant dafa bari foog ngeen wut ci solution monsieur le mise des finance ñiy sàcc courant c'est à de ay million la kon boog ay à de milliards parce que am na ñoo xam dañoo toog di sàcc courant euh, loolu foog ngeen wut ci solution parce que loolu nag li muy yàq day bari beneen bi gémmiñ bu waxul dëgg waxi fen kenn mënul taxaw fii naan suñ ay kilifa ay sàcc lañ ñu taxaw di la seetaan Ousmane Sonko mi nga xam ne moom ngeen yaakaar je vais le nommer directement ministère bii mooy ministre problème il avait promis au lobby une fois au pouvoir ñu koy virer xaalis bu dul jeex ay milliards la lekk ñooñu tey seen yaakaar tas xam nañ ne il ne peut il ne peut plus être candidat. Ces lobbies sont en train de menacer sa famille. Il a écrit une lettre directement au président de la République pour que le président protège sa famille. gémmiñ bu waxu dëgg waxi fen kon boo gis nga tey li ngeen wax yëpp du waxi dëgg wax ngeen li xaalis bi bi bi sama waajur wax xaalis bi mu jëlee bitim réew ñëw yéen ñëpp Ousmane Sonko dalee na mere xeex bi ngeen ko waxoon la ngeen ko xeexal yéen a ko baay mu wét ngeen di wut alal ci dondam ngeen wut xaalis ci ndoddam mu jëpp leen kenn ñëwul dem ci moom bàyyi leen caaxaan moom moom xaalis bi ñu jëlee bitim réew ñëw fi bëgg koo leeral du lew blanchiment bi du lew nañ ko leeral jërëjëf